war sa sel xam na ni la ko mag ñi daan tuddee loolu nag ñu bokk ci secret mag yi Sénégal yi waaw mag ñi doon Sénégal loolu dafa bokk ci seen secret ñu koy tuddee wërsëgu si la xel ni mu nekk loo xam ne téere lay doon ñu di ko takk am na nag euh, euh, kenn ku nekk foofu koy takk rek maanaam laa ku le xam ne nekk téere bu ñu takk wax nañu képp ko jëfandikoo ku bëgg yàlla yëkkati wërsëgam ma mel ni wërsëgu sel xar ni mais ko ubbeeku na ko def bañ na nag bañ wax kan misli sel xar ñu ci misaal rek mu mel ni fil xarnayn waaye nag waxuñu xaqiqa ba maanaam la newoon ci fil xarnayn nañ ñëw ci moom ndax loolu mën nañu faat na waaye itam ca barke ba ko yàlla joxoon mu comp jox ca la jox ca loolu ñu jublu rek waaye nekkul ne nag kattan nga amoon ak doole ñu amoon ak li amoon nga ci wërsëg yëpp dañu ci yow déedéet waaye dañu ca jublu noonu rek misaal ko ni wërsëg yi li lu am am ko am njëriñ moo tax mag ñi daan ko wax wërsëg fil xarnayn Thumbnacle wóor loo xam ni mboolem ko jëfandikoo ko nekk nga ci sa bët ci ak dolleeku ci wàllu alal kon loolu la leen bëgg a baaxee wax leen istimaal bi naka lañ koy jëfandikoo muy man arada man arada an yarfaxa allahu lahu risqan waasixan fa misle sil qarnayn falyaktub hada al ismayn huma baduuhu waduud badu baduuhu cinq mille cinq cent cinquante cinq mara ko bind cinq mille cinq cent cinquante cinq waduud cinq mille cinq cent cinquante cinq ñaari ñaari tur yàlla yooyu bu ci ne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 dimbali leen ci wàllu xam-xam achar ñu mën kom mokkal ndax bu seen bi amee doole rek yéen seen njariñ la kon ngeen abonné tey tey tey tey tey like vidéo yi incha allahu taala beneen bi ci topp itam li tax ñu sonné lii mooy am nañu yéene buñ jugee ci kaw suuf ñu bàyyi loo xam ne jëriñ doomu aadama yi ñu mën di ñu fàtte ko duñu ñaanal lool rek la beneen bi itam ñu profité leeral ñu bëri ñu ñu laaj ci wàllu whatsapp bi lu ci mel ni ay xam-xam yoo xam ne lu ci mel ni nopp ak ay nopp ak yeneen xeeti xam-xam yoo xam ni mën naa lor doomu aadama loolu nag li tax ñuy wattandiku ci di ko joxe ci réseau yi da cee bari ñoo xam ni soo leen ko joxee waaw da cee bëri ñoo xam ni soo leen ko joxee ñoom dañ ciy profité di ci lor ay doomu aadama léegi defe noo xam ne dañ ciy lor doomu aadama te boobaa lor ga ñu lor doomu aadama yi yow mi nga xam ne ci la xam-xam bàyyi ko ci yow yow dañ cay am dañ cay am responsabilité borom loolu yi nag moom la ñuy maytu di ko wattandiku moo tax yenn xeet xam-xam yu ci bare bëri duñ nangu di ko jàngale ci réseau yi nga xam ne ko nekk fi daje am na ñu nag ñoo xam ne seen soxla lañ am bëgg lu mottali seen diggante lu ko defar ak yu demee noonu loolu loolu ñooñu liñ bëgg lu baax la waaye de am rax ñoo xam ne doon mën a xàmmee tey dañ ko def lu loo doomu aadama te xam-xam yooyu dafa nekk lu gaaw loo xam ni lu mel ne xam-xam xaati mi lay efficace te gaaw lool boo ko jaaree fa nga ko war a jaar tey kon nit mën na cee def ba jël ba pare di ko di ci caaxaan loolu lañu ñu kon ñu àggale leen ci eh, turu yàlla bi gannaaw boo defee noonu boo bindee sooratul après boo bindee sooratul sooratul kawsar sooratul xadri trente fois sooratul eh, sooratul kawsar moom it trente fois léegi nag looy bind mooy allahu akbar alfa marra allahu akbar ngay bind junni yoon gannaaw boo bindee allahu akbar junni yoon nag da ngay daal di bind sooratu yusuf boo bind sooratu yusuf nag وكلما بلغت وكلما بلغت مكانا فيه يوسف تكتب يا جميل ma azmaka ba bind sur yusuf saa yu jotee barab boo xam ni ba saa yu jotee maa ngi jéggulu fàtte def naa si saa yoo maanaam boo accès ci barab boo xam ni baatu bi moo ci nekk da nga koy bind sa tur sa ngay bind ci barab bi boo bindee sa ya ya jamilu ngay bind ak sa tur bokk dama jub ngay bind ya jamilu ma asmika baatu yusuf rek faj àggee ñële ba sorotu yusuf sorotu yusuf bi mat bu matee nag nga dal di bind aya bi muy suyna linnaasi hubbu sahawaat min annisa nga bind ko ñaata yoon ñaar fukki yoon nga koy bind moom yashroona marra adadu baduux nga koy bind ñaar fukki yoon boo ko bindee ñaar fukki yoon ba pare nag dangay daal di bind aaya bii di walaqad karam naa bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbahri wa rasaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila moom nag yaa ngi koy bind moom it ñaar fukkeer nga koy bind muy adadu wadud ba léegi mais badu ak wadud yëpp bu ci ne adat boobu la jàpp yi képp ku def lii bind ko ni ñu ko waxee àgg am nga liñ secret bi ñu wax wërsëgu sul xamaani bu la neexee mën nga koo jël nga ëw ko téere takk yaa xam fu la sopp sa yaram nga takk ko waaye wax nañ ni ku ko takku ne da nga am te juddu malikut dunya wa jamihil ashaq min jamil abaq da nga am nguur àdduna da nga am daraja ci nit ñi ba pare itam mboolem foo jëm fu ne yàlla dana ubbil sa wërsëg insha allahu taala kon daal ngeen bàyyi xel ni léegi ñu leen indil mooy wërsëgu sul xarnayn waaw wërsëgu ci loxo la moo nekk nii téere lay doon nañ koy takk kon daal secret bu am solo nii ku abonné gul na nga abonné te ngeen like vidéo yi te ngeen di ko sem waaw like sax mooy sem waaw eh, te ngeen di abonné luñ mën di dugal ngeen mën koo am incha allahu taala te ngeen ñu ñaanal yàlla ak dundu gu barkeel incha allahu taala kon jërë ngeen def ci topp gi yal na yàlla boole mu yiw wu adduna ko alaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh